mukarraman bi qirat taahaati wa sadadi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokk yi ñuy seetaan ñu ñëw ci sunu sit bi ni wax sunu actu point com di leen indil naafila yi am ci weeru koor wi ñu di ko jukkee ci téere Sëriñ Son bu Mbàkke radiallahu taala anhu muy téere bi ni wax xoratul xëy ni ñu ñëw ci guddi fukkeel bi ak juróom guddi fukkeel bi ak juróom danañ ci julli juróom benn rakka rakka bu nekk dañ ci jàng fatiha ak isaa jaa nasrullahi benn yoon ak qul huwallahu ahad fanweeri yoon fanweeri yoon ak juróom ñu baamtuwaatal leen ko guddi fukkeel bi ak juróom ci weer ci naafile leen ci naafila juróom benni rakka rakka bu nekk dañ ci jàng isaa jaa nasrullahi benn yoon jàng ci qul huwallahu fanweeri yoon ak juróom mbokk yi yal na yàlla nangu seen i naafila te nangul na ko ñu sant ñëpp gërëm ñëpp ni ma leen ko waxe woon am na ay ñaan yu bari yoo xamante toftalu no ci ngir jàpp ndil leen ak indil leen naafila yi moo tax waaye jullit bu nekk yaakaar naa saa bu jullee ba noppi dina am ay ñaan yu mu war a def yal na yàlla nangu seen i naafila nangu seen i koor te nangul na ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah ya ayyuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyam kama kutiba ala alladina yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bila adadi laa zilta dayfan kariman zaa'iran abadan mukarraman bi qiraat taahaati wa sadadi